xabaar yi waxtu woowu jot na sëkk ci njëlbeenu xabaar yi nag jàpp nañ ko tey mi ndax moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye demoon na eh, ci ndaje mi nga xam ne nii moom la ñu doon jagleel yi doon itam CEDEAO mu nekk ndaje moo xam ne ni réew yi bokk itam ci kuréel gii di Afrique sowu jant doon nañu ko amal doon ci waxtaan itam li leen soxal moom itam njiitu réew mi eh, am na ci taxawaay boo xam ne nii la mu bëgg rek moo di CEDEAO bu gën a déggoo bu gën a doon benn te itam benn xaajaloo bañ cee am ngir ñu mën a itam sàmmonte ak ak dal bi ñuy yaakaar itam ci dendu Afrique googu nga xam ne moo doon CEDEAO ba tey itam ci wàllu xabaar xam nañu ne li nga xam ne dafa soxal lépp lu jëm ci wàllu euh, nawet bi itam am na dugg guñ ci dugg waaye laata loolu dinañu dem ba ci Strasbourg ndax jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi doon na dem foofee ngir xool. lii doon itam ay saxaar ak wagon yoo xam ne nii dafay soxal suñum réew ci wàllu train bi ñu jiitu ki itam jëwriñ ji demoon lijjanti ko foofee am na nag loo xam ne jébbal nañ ko am na lu ca des itam ñu war ñu koo jébbal dafa demoon itam xool fan la liggéey ba toll ak kañ lañ ñu koy jébbal incha allah dinañ ci indi ay leer wàllu xabaar itam xam nañ ne eh, ni ki démb ak bërki demb itam am na taw boo xam ne nii taw na ko bët sébbi na ci yenn barab yu bari loole itam naam mun noon am ndox waaye itam mu am loo xam ne ay jafe-jafe la indi ci wàllu dëkkuwaay ndax am na fu ndox ma wàll itam am fa mu taa am yenn barab yoo xam ne nii daanaka am nañ ci jafe-jafe ci nekk gañ nekk ndox ma foofee kilifa yitam sol seen daal dem seeti leen wallu leen bind jéem a bind itam saafara ci li nga xam ne itam moom moo doon wàll woowee am foofu ci wàllu xabaar itam xam nañ ne dañoo toll ci jamonoy joxe résultat baccalauréat yi moo waral ñu dem ci yenn liise yi xool itam dongo yi nañuy xaare seen résultat ak itam njàqare waaye itam mbégte mu ñuy am itam léeg-léeg buñ nee ne admis nañ loolu doon loo xam ne ci yu bëri dem nañ fa incha allah dinañ ci indi ay leeral ci li nga xam ne nii moo doon gis-gis bañ ci am ak nañuy xaar itam résultat yi ak nañ ca tonke ni ñu ko waxee ci njëlbeenu xabaar yi njiitu réew di président Bassirou Diomaye Faye nekkoon na ci ndaje mi nga xam ne nii dañu ko jagleel lépp lu jëm ci yenn réew Afrique sowu jant yi mu nekk ndaje moo xam dañu koy baaxu di amal CEDEAO doon kuréel goo xam ne dafa boot ay réew Afrique sowu jant yi te ñuy toppatoo itam lu jëm ci seen wàllu jàmm seen wàllu koom ak seen wàllu nekkin ak bennoo ngiritam itam loolee am ak jàmm joo xam ne jàmm ju sax dakk lay doon ak ak bennoo ko déggoo moo waral njiitu mi nag ne am na ci loo xamante ne ni lu ëpp seetaan la ci ñoo xam ne itam léeg-léeg bëgg nañoo ber seen yoonu bopp ndeem nag mën nañ cee sol tànk soldaat itam ci tànk jàmm ngir lépp loo xam ne itam moo doon bennoog Afrique ngir doole Afrique ngir jàmm Afrique loolu ñu def ci seen kéem kàttan bay ci seen waar itam béy ci li nga xam ne itam moom moo doon lañ ciy séntu ci ñoom ngir lenn loo xam ne ni daal lu doon itam ak xàjjaloo laak ak réeroo bañ am ci dénd boobu nga xam ne moo doon dénd Afrique sowu jant rawatina CEDEAO ci wàllu woowu sax njiitu réew mi am na addu ci addu ndax moom ba mu ñibbisee fii ci ndakaaru am na daanaka kàddu yoo xam ne nii yëkkati na ko jegleel ko li nga xam ne nii moom moo doon wàllu woowu rawatina wàllu jàmm ji wàllu itam tànk jàmm yi nga xam ne bëgg nañ koo dox ngir kenn bañ itam tireeku ci li nga xam ne moo doon la am bokk ko te mu doon loo xam ne moo doon seen mbooloo doon seen doole doon kuréel ak CEDEAO ñu teewlu ko. Sénégal dafa am taarix ci am na ñoo xamante ne ci diplomatie dañ ci dox ay jéego yu am solo ay grand diplomate yi tax sénégal nu muy doon réew mu màggul ci wàllu yaatuwaay réew réew moo xamante ne dafa am koom-koom ay diplomatam ñoo ko am tour bi nga xamante ne moom lañ koy bàkkee ba ñun loolu la ñuy nekk di wéyal ni ba tax na sénégal fu mu taxaw ci kuréelu àdduna yi ñu respecte ko kon am na tànk yoo xamante ne waruñu ko wàcc muy tànk woote jàmm tànk continuer doon seetu goo xamante ne ku xool ci ñun xam démocratie fii la fekk baax xam ne askanu Sénégal màgg na màggaay goo xam ne saa yu taxawee jote mu war a taxaw nuñ ko war a nawee taxaw na ko ba mu mat sëkk kon tànk yooyu lañ demee tamit ci CEDEAO ndax laata some bi di jot li nga xamante ne moom la sama naatango yi euh, président bokk ñu ma bokkal CEDEAO sant tey mooy dem doxi tànk jam fekkoon nañ ñu taxaw ci ba pare dem seeti waa Mali dem seeti waa Burkina seeti ñeneen ñi nga xamante ne tamit du ci ñetti réew yooyu rek tànk yi tamit tànk saafonte la woon tànk gën a rataxal diggante réew yooyu ak Sénégal waaye tànk tamit wax ak dox jàmm ci liy jëmal kanam ak ci liy gën a boole ñi nga xamante ne ñoo bokk CEDEAO alhamdulilah mel na ni sama naataango yi ci CEDEAO dégg nañu wax jooju ndax boo xoolee résolution bi tey wax nañu ne lépp luy jéego pour dem waxtaani ji suñu xarit yooyu suñu frère yooyu muy waa Mali waa Burkina wala waa Niger dinañ ko taxaw bu baax a baax te man mii lañ ci jiital sant ma ne waxtaan jooju naa ci def lépp li ma mën pour indiwaat leen dañu wax ne nag résultat bi nga xam te ne moom la ñuy yaakaar dañ ko am par force waaye dafa am lu ñu war def lu ñuy war mooy taxaw dem seeti ñi nga xamante ne féewaloo am na réeroo am na xëy na sax meroo am na pour ñu waxtaan ci waxtaan ak ñoom ñu am bu ñu bokkee kuréel tëggaat ba xool ndax dinañ mën a toggaat bokkaat même anam kuréel bi nga xamante ne mooy CEDEAO kon góor góor lu ngi ci côté bi te ñu ngi xaar ci beneen côté bi tamit lu nekk fa ba génn bañ a am ndax liy dooleel CEDEAO mooy ñëpp a toog ci CEDEAO ñu tëggaat CEDEAO nu mu war a taxawee pour gën ko dooleel ci Afrique ak ci biir àdduna bi. loolu doon kàddu yoo xam ne mi ngi tukkee ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci micro Aboubacry Kane moo doon addu itam ci tànk jàmm yi nga xam ne ñoom fas yéene nañ koo dox ngir yenn réew yi nga xam ne nii kat am na ak lëj seen diggante e ak CEDEAO loolu lay ñu fase ba ak déggoo am ci ba itam bañ ci lenn bañ ci réeroo nga ñi xam ne moo doon kuréel goo xam ne seen mbooloo moo doon seen doole moom njiitu itam. ba tey eh, àdduna ci li nga xam ne moo doon eh, taw bi ndax kat gannaaw ba bët sébbee ci yenn barab yi ci mel ni Kaolack ak fii ci Ndakaaru am na nag wal moo xam ne nii itam niru na waame ci yenn yi ba am ñoo xam ne itam seen i dëkkuwaay am nañ ci njàqare loolee nag réew mi masawu na leen ci xam leen ne itam lépp lu ci daal itam taxawaay bu ci nguur gi war a taxaw dinañ ko taxaw ànd ci ak ñoom lépp loo xam ne nii itam wet gu ñu war a nekk ci seen wet la loolu kenn du leen ci jiitu ñu teewlu ko. sant ko ci num ñu mayee ñu fekkewaat nawet gi sant ko tamit ci num ñu mayee euh, taw wàcc ci réew mi te bari fi euh, di ko ñaan mu doon ndoxum jàmm ndoxum gu barke ndox moo xam ne lépp li nga xamante ne dina fi meñ ñi ciy sonn fekkee ko ba jëriñoo ko te mu doon jëriñu senegal di sant yàlla tamit gannaaw bu ñu booleegi askan gu mel na askanu Sénégal ñu jiite ko ndax laata muy taw am na nuñ ko doon waajale te nuñ ko doon waajale mooy woo waa senegal yépp pour ñu booloo setal suñu réew liñ ci namm mooy ren gi ANACIM moom mi nga xamante ne moo ñuy wax ndax taw dina bëri wala déet def ñoo teel wax ne ren taw dina bëri te ku ne taw Sénégal wax tamit inondation loolu taxoon ñu waxtaan ak sénégalais ne leen pour ñu jóg ci njiitalu ministre de l'hydraulique et de l'assainissement docteur Cheikh Tidiane Dièye ànd ci gouvernement bi yépp ñu doon gaawantu ngir nettoyer canaux yi nga xamante ne ndox mi bu ñëwee foofu lay jaan sénégalais yi nag wane ci njàmbaarte bu mag a mag a mag mag xëy na nuñ ko waajal waajal waajal li xew ren gii nettoyé ak curé kano rek doyu ci kon am na ñoo xamante ne dinañ ci loru ñi ci loru kon ñu ngi leen di masaw bu baax laata may abuja bi nga xamante ne maa ngi doog a ci premier ministre Ousmane Sonko jokkoo ci ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Cheikh Tidiane Dieye laaj leen situation fu mu tollu laajte données yi nga xamante ne taw mi mu wàcc naka la toll ak yàqu-yàqu yi am wala inondation yi mbënn mi fan lañ ko gis pour lépp loo xamante ne war nañ ci war nañ ko baral ci ay moto pompe ak leneen li nga xamante ne mën na gaaw a wallu askan wi ñu gaaw ci taxaw te xam naa ne sax ñu ngi ci ndax docteur ti Tidiane Dieye mi bàyyi tukkeem delloo fekk ji waa Kaolack nga xamante ne foofu lañ njëkk signaler ndox mu bari ci loolu la taxaw te mu ngi jàppalanteeg mairie bu baax a baax pour ñi nga xamante ne noonu lañu leen di dimbale gaaw pomp ndox mi te noonu loolu mooy doon suñu taxawa fépp ci réew mi tamit. loolu doon kàddu yoo mi ngi tukkee ci njiiti réew mi di Bassirou Diomaye jaxaar fay ci taxawaay bi nga xam ne itam moom lay béral ne incha allah nguur gi dina ko taxaw ci yotu ñi itam ndox mi am fu ñu jaar ak ñoom. loolu sax moo waral jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu euh, nawet ndox mi ak itam wàllu xayal ndox mi mu di docteur Cheikh Tidiane Dièye mi njiitu réew mi doon tudd léegi ba mbir mi amee ci Kaolack itam daa daal di lagg yegg ba foofee ngir bokk ak ñoom li nga xam ne nii moo doon itam loolee fa nekk te ñu mën leen cee masaw waaye itam bind saafara ci li nga xam itam moo doon lafa nekk tawat ñu teew li ci Claire Diop.